minuit jot na jamono yi fi ci marché okas bu Touba waxtu yi nak jafé na lol ñu fi daan fekk ay jaaykat lu dut événement yu melni tabaski korité wala magal. waye ni ñu fekkee seen place yi wutena ak lol ñin ko daan fekke ci événement yooyu boo leen gisee jaaykat yi rek xamne melna ni ñu ngi ab toxo kon lol day daldi bëgg andi tontu ci laaj bi nga xamne ni ñi ëpp ci askanu Touba ñu ngi koy samp doon laaj ndax marché okas dana bok ci déguerpissement bi waaw wala ku gis jaaykat yi man ngaa njort ne waaw donte ñi ñuy fekk ñi ëpp ci ñoom bi ñu leen laajee ndax am nañ lu leen leer ci ne déguerpissement bi dina fi egsi waaw wala déet ñoom kat ne neen amuñu ci lenn lu leen leer waaye comme ngoon ak tey ak information yi ñuy dégg fu nekk tax na kat ñu bëgg a xoddeku bala ñoo lakkale lu ëpp ci ñoom dindi leen seen i bagage waaye ñi nga xam ne nii nag ñoom seen i bagage xëy na yombuta dindi wala bu ñu koy dindi ci bëccëg gi mën naa indi ay jafe tax na ñu jaayante des fi ci guddi gi ngir toppale seeni bagage balaa déguerpissement be ñew ci wet gi ñoo ngi gis saret yi ngir mën leena jappalé ci roñu bagage yi ci geneen wet gi tout tank yi nga xamné ni donte jamono yu guddi na deguñu ñoo ngi yor seeni saaku di for yenn bagage yi nga xamné ni mën na leena jariñ waye ñi nga xamné ni ñom lañu fekk fi ci marché te ñu nekk ci yoon wi nga xamné ni dafa waral bi ñepp rek ben baat rek lañuy wax né ndigal sëriñ bi la dañ koy jëfé te bayyi seen bopp ak sëriñ bi leen rek nag moo leen ci xaw a jaaxal mooy buñ jógee fii fan lañuy dem ak fan lañuy ñuy yóbbu seen bagage yi waaye lu metti metti rek dañuy bayyi seen bopp ak sëriñ bi nga xam ne nii moo leen moom moom dëkk bi moom marché yaral yaakaar abada ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xenn bi soon yoram na tey yaru nanu dootu nu foo xami nanu dootu nelaw yow nanu yërëm nu naatal xarnu bi soonu joxoon lak lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaa yegoon yaru nanu ku weddi laajal xarnu bi yaram lu nanu torox lu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nun sun këri baay gaddaay def la sunu baay tuubaa kër bambaa waay sëriñ bi geesul xarnu bi murid yi na nañu ren ngir xam na yaa leen amewoon leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga booti xarnu bi tijaani yecci nañu tey xam nañ ne bay suuru booy yaa mën a may doy ma tee nga naatal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem pëlëg naar ak wolof kéendil ku ami yëf sëriñ bi giyaalul xarnu bi koo xam ne daana xami jaak daa mi a ngaara ke jóog mi aan maam deen mu jeeg sëriñ bi jeedul xarnu bi ku mas am yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te muntaam njëgu mata sëriñ bi jeedul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju ne bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi jeedul xarnu koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju ne bu baax kër yaa ngi weet ba ne cundung lal yañ yoroon de bi korong ña dooni wuur de bi koyong sëriñ bi jeexul xarnu bi tubaab yi sax ñu leen gamoon it peri nañu yaawooti it fayin nañu yal nañ yées ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lang fu njulu dee seen falang adduna yaa kanoo weleng sëriñ bi jeexul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatul loo joxi naar waay mbàkke geesul xarnu be waay mbàkke yuuxu ba dee wàllu soo yeexeenu dee melal na kuy ramu dee yaani tinil waa bi yow yaay danay muhammadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man nga defar waa xarnu man nga defar bi teeki biir defar nga baadooloo ki boor yaa dindi baag di beer càkk murit yi bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw lu wax fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi Chambir appaate na ak dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm ngam may njariñ waa xarnu bee ma leebu nag gaañu la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa neexawan waa xarnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu may lu ma am boole muy dew diraam ak cant war waa xarnu bi Bamba mu ne fu laa misaal yaa géeju war waa Sénégal kenn du la genn gaal say duusa tooyal xarnu bi Seex Bamba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande dey di mbaane teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaaley dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku na coram kaasum ngërëm du mar des ci xarnu bi géeju ikkam gim daa dëtam ba ne ko secc moom ñooñam monsieur bu ko nandal ko xam toqen bi doy na xarnu bi luum loona foore yoon raam loona kànge mi fi wan bari fi ne woon niroom amul ci xarnu bi sorob andaari xam